déggee ko noonu am na way waay mooy ku mimi muy djum fa japp ni politique ak menu restaurant c'est la même chose mom ko bëgg tan tànn ku muy jaakaar lool bëgg tan euh ñuy bokk ak ñu dul dama né biñ doon xex démb ak bërki démb l'objectif de la prise d'otage qui Bougane Gueye ni benn objectif moi faire wàññi coalition sans M. la vérité c'est que la tenue tech en place la coalition M. à à mon ay leader politique comme Bougane Gueye dit la ci indi la contradiction une politique Tierno Bokoumi, né à ma droite, honorable Pape Djibril Fall, avec d'autres influenceurs, d'autres TikTokers, nous commençait à à Askan au Sénégal. Comme elle j'avais opté pour le silence. Parce que dans mon son on parce que wolof Ndiaye nee na ci que di le mensonge mën na jël ascenseur dëgg y di la vérité mën jël ay escalier On yàgg-yàgg à port et à destination kon Bougane Dany arrestation Bougane Dany na nga c'est une prise d'otage pour amputer à la coalition Sam Kadou la participation d'un de ces éléments clés à la campagne pour les élections législatives. parce que nous avons une stratégie pour déstabiliser la coalition Sam Sekadu. Nous, nous ay gouvernement de Mimi ne pouvons ko commenter pouvons ko commenter parce que nous savons xam nous wax dëgg yàlla xel yi mën nañ dal te xol yi féex parce que sénégalais yi mën nga jàpp ni mën nga leen nax te sénégalais yi d'habitude waxam bëriwul moom élection rek lay xaar jël kàttan te faj gàcceem moom loolu moom sénégalais mën na ko te élection yi incha allah am nañ ci yaakaar parce que sénégalais yi mën nañ xàmmee te mën nañ ràññee moo tax mën na leen lu mi mi nekkee ci dëkk bi il peut gagner une bataille, il peut gagner des batailles, mais il ne gagnera pas la guerre. Ça, je peux vous le garantir, il ne gagnera pas la guerre. Il ne gagnera pas la guerre parce que le mensonge ne peut pas prospérer wala ci nguur fi nekkoon wala ci institution yu mel ni la justice kon nag ñoom suñ jàppee ni tey duñ leen wax seen bopp yi dañuy nax seen bopp te ragal amu fi te xamante nañu bu baax a baax moo tax Bougane ngay Dany ba ma ko gisee démb dama am xel bu dal parce que góor pire laa gis jàmbaar pire laa gis lenn rek

ci tappale yu nga nekkoon ñaata sénégalais ci ñàkk seen bakkan ci bu nga nekkoon ñaata sénégalais ñoo ci tuur seen deret ci tappale boobu bu nga nekkoon ñaata sénégalais ñoo dugg kaso ñu leen di toroxal leen torturé yow mii nag yaa ñàkk jom te stratégie bu ngeen fi mënti lal mooy jël ci suñu njaboot dëgg ci kaso wala ngeen jël ci suñu njaboot bëgg a dëpp seen xel yi yenn yenn xam lu leen tax a jóg wante lu am ba am mooy sénégalais yi le 17 novembre incha allah dinañ faj seen gàcce parce que 54 pour cent des sénégalais amoon na yaakaar te wax ci duñ ko raay parce que yaakaar jooju yéen ñëpp ci dëkk bi ngeen di yeewoo xam ngeen le danger de première nécessité xam ngeen fu mu toll est-ce que wàññeeku na am déet xam ngeen est-ce que lu ñu diggoon askan wi particulièrement ndaw ñi emploi est-ce que am na am déet gis ngeen fii tous les scandales en sept mois juróom-ñaari weer ay scandales yu nous jeex te comme nu ko sans. sànq je crois que c'est l'honorable député Thiam Bogoum y a que la justice seule

je pensais même qu'il y avait 13 ans l'année qu'on Tambacounda maa ngi en 2005 j'ai fait quasiment toutes les prisons de ce pays xam camp pénal xam naa te Tamba suñ ma waxee que jël nañu Bougane Gueye avec plus de 40 personnes j'interpelle directement le directeur de l'administration pénitentiaire Je laay waxal waxuma keneen loolu xam ni du te ne que jaaduwul nan na administration pénitentiaire seen moyen de limité wante dama ne la prison de Tambacounda n'est pas une prison c'est un enclos pour chevaux man ba ma fay nekk sax amoon évasion parce que malheureusement c'était l'état de la prison prison jooju soo ko duggee xam Dakar am ngeen Fort pour les enfants mooy xale mineurs yi am camp pénal mooy pour jigéen am ngeen rëbës pour gori yi am tamit camp pénal pour les condamnés définitifs les condamnés pour les longues peines man ba may bañ may dougal 2005 ci kasso bi ci Tambacounda dañ ma jëlee fi camp pénal génn ma 4 heures du matin gars yi jël ma cagoulé dougal ma ci auto xaw ma fu ma jëm gars yi yow ma Tambacounda ma egg Tamba il fallait il faisait peut-être ay 10 heures du matin ba ma ñëwee nak wax dëgg yalla registre bu fa nekkoon dalal administration pénitentiaire gàcce ngalaama ñu jël suma ay bagages ma topp leen ñu dugal des ci benn cellule man kese pour des raisons de sécurité munoo jël ay leaders politiques d'un certain niveau di dugal dans des dans dans dans des cellules fu ñuy wooyee cellules dans le jargon mooy paquetage te waa Rebeuss ak may dégg waa Camp Pénal ak may dégg te xam lan mooy paquetage parce que dama ci teg suma bët kon nag nous appelons l'administration pénitentiaire à assumer ses responsabilités man le may secteur minier, nous yi ñu génne mineurs les parce que nous kaso rek am Tamba ñu bàyyi jigéen ñi secteur kaso tout le temps où je suis resté à Tambacounda il n'y a aucun prisonnier dans la prison de Tambacounda pour ma teg tout le temps où j'ai été incarcéré à Tambacounda gisuma benn détenus pour des raisons de sécurité Souma ma doon pour dem watu ji wala dem jëli Souma añ même ñu nekkoon dans la population carcérale générale dañ leen doon bloqué Ken musuma teg bët musuma pour des raisons de sécurité tous les hommes politiques qui sont passés ici ont été isolés man comme damaa xawoon miin tuuti man comme damaa xawoon min touti. Ah, je m'excuse hein, il y a apparemment une coupure de courant je vais continuer tout de même je vais tout de même continuer le, point de euh, de presse j'espère que yenn a ngi dégg ci micro yi wante lu fi xew ni lu fi xew ni c'est à l'image du pays moy délestage yi te xam ngeen fumay waxé waxee ku mënul télé, ni nii rek la mbir bi mën a des coupures de courant à tout bout de champ té ñu ngi commencé diko minat. bëgg a kon nak euh, mbokk yi dama ne lu ñu bëgg a Bougane Gueye dañ koy ñaaru ci interpeller l'administration pénitentiaire wanté tamit di ci interpeller tous les acteurs des droits de l'homme Bougane Gueye dani n'est pas n'importe qui dans ce pays mu neex leen loolu la yalla dogal mu nakari leen loolu la yalla dogal kilifa la am nak Sénégal ay sénégalais yu am yaakaar ci moom dama ne du benn acteur politique fii Sénégal en commençant par Mimi bii kenn su leen paqueté kon nag bëgg a jóg tey ne da ngay jël Bougane Gueye dani di ko paqueté duñ ko nangu te duñ ko seetaan maintenant nag balaa ñuy nekk di monter l' information à autre niveau wax dëgg yàlla na ngeen teg Bougane Gueye dani dans des conditions décentes wala ñoom ñu may dégg wala vous transférez Bougane Gueye dani à Dakar parce qu'à Dakar, il y a effectivement des prisons qui peuvent accueillir Bougan Gaydani et la cellule des VIP à Rebus est encore réservée. Parce que pour l'instant, il n'y a personne là-bas. Konak, paquetage, boum, parce que Kumin Kasso, demandez Koumin Kasso, dina xam lan mooy tuberculose parce que doo ko doo doo rek di ko gis da nga ak yeneen xeetu yu nit ci na ngeen nekk parce que yéen bañ leen di téye ci seen les on a respecté votre dignité humaine dama ne bañ leen ci l'administration pénitentiaire a respecté vos droits donc on vous demande d'en faire de même et on invite aussi les droits de l'homiste à se lever à se dresser et à dénoncer cette forme de torture psychologique mbokk yi comme nous ngeen ko xamee démb dañu dem nous avons dañ fay dem jàppale suñu naataango di président Gueye man ba ma fay egg Tamba président Bougane Gueye Dany euh, mi Bakel parce qu'apparemment il y avait des problèmes sur le PV Madame dem jëli benn néeg ci benn hôtel foofu pour mën a dalu ba may génn sax ma daje ak avocat au président Bougane gaidani, Dany di El Ajouf. Je au passage pour teewaayam ak euh, sa constitution di tamit gërëm di de tamit maître bar de Tambakunda. bañ ma président Bougane euh, président euh, président il est à 30 kilomètres de Tamba Maintenant, on quitte et on parle le rencontrer Nous, dans le mu ben comité d'accueil bu ndaw man ma wàcc s'affronter avec nous, dem suis ci tribunal bi ma bëgg xam depuis tribunal, dañu sénégalais je suis tribunal ma dugg tribunal toog suis ak may gis te vidéo yi ñu ngi fi policier ñëw ak monsieur le maire j'ai reçu des instructions da nga nar instruction j'ai reçu des instructions da ngay génn fi ma laaj ko moom mooy kan dina identifier boppam parce que nit ki nag moo doon commissaire de police wala d'un certain niveau dans la police di ñëw di joxe ay instruction wala di relayer ay instruction yu nga xam ne ni wax dëgg yàlla loolu nopp mënu ko dégg te xel mënu ko nangu mu ne ma je suis adjudant chef fàtte naa turam ma xoolaat ko ndeysaan ma gis quasiment mon fils aîné qui a vingt ans ma xam ne ni que kii su su amee vingt cinq ans ci la yem ma xool ko mu ne ma il est adjudant chef ma ne wax dëgg yàlla du ma fi indi ay problème ba ëllëg benn adjudant chef di ci am problème ma ne ko nag wax dinaa la wax ñaari baat tribunal bi mooy comme suba su ngeen ma bëggoon dàq daanaka ma jóg mais damay dem service des mines pour dem ci ay këyit ngeen dàq ma service des mines wala ma dem poste pour jël fa benn colis wala bëgg a poster benn colis dans un service public utilité publique depuis quand est-ce qu'un citoyen sénégalais a le droit de ci un tribunal pour faire un benn ou wala wut fa këyit porter plainte depuis quand est-ce que citoyen sénégalais le droit dem service des mines pour faire un këyit pour depuis quand est-ce qu'un sénégalais n'a pas le droit d'aller dans un service public d'utilité publique ma ne ko d'accord dinaa génn je suis ma bëgg la xamal ñaar fitna indiwuma fi te su ma génnee xam naa leen ma cokkaas te xam naa li ma àndal ci am ma leen d'accord suis ma génnee ñu commencé di cokkaas dinaa wax ñaar man damay politique toute la presse nag laay interpellé képp ku ànd ak man lors de la dernière élection présidentielle il ñëpp gis ngeen campagne de mu man suma campagne di dem ci ay gare routière di dem ci ay marché di dem ci ay tefes di dugg ci ay nit ñi di nekk foofu di saaga di xaste ak di la bok. est-ce que xam ngeen fu ci la bokk daanaka campagne bi du ngeen ma gis ma romba fenn nit di ruube ma koy xeelu di wala di wala di hein? parce que loolu mooy démocratie

amna ay beureup jaar naa fa tàllal suma loxo mu am ñu ngeen xamne ne dañu tey seen loxo ne duñ ma nuyu wante amna ñeneen ma talal leen suma loxo ñu nuyu ma am ay mbokk yu nekk ci Pastef ci élection présidentielle ma jaar rombaleen ñu def ay selfie ak man parce que loolu mooy Sénégal bépp coalition bu ma dajal ci élection yi nuyu naa la tàccu naa la ñaanal naa la te encouragé naa la parce que loolu mooy politique la politique, c'est d'abord l'élégance. La politique, c'est pas fait pour n'importe qui, c'est pas fait pour les banquiers. La politique, c'est fait pour les gentlemen les gentlewomen. je ba ma Je je commencer je parce que nag me qui Je Bon, wax ci ci à ce stade ngeen may ma nag mu ubbi benn parenthèse soog ko tëj yàlla moo dogal ma doon tey kilifa doon le maire de Dakar am na ay kàddu yu narul génn suma gémmiñ moo tax ma bëgg a jéggalu askanu Sénégal parce que suma cër coow bu muy am xala xalaatuma woon que les mikro étaient ouverts mais comme man booy Dakar la xam nga nag am na lu mënul ñaa wante man maa ngi askanu Sénégal parce que y a des parents seen doom dégg nañu wax il faut que ma jéggalu parce que du suma ensuite am na ay kilifa diine ak ay ak ay kilifa aada yu dégg baat yooyu te du suma suis may askanu Sénégal ci baat jooju ma tëj nag parenthèse parenthèse waa ñu xam ñu xam ni ñoo instrumentaliser ay pour ñu indi ay je vous donne rendez-vous le 30 le 30 non mom du am benn baat bu ci man le 30 di ngeen xam ni fu lay jaay di respecter nit ñi par force parce que ñun dañ leen respecter man ba may politique je suis dans ma année musuma yonne ndaw ci politicien ne na ngeen dal ci kaw musuma yonne ay ndaw ci politicien ne na ngeen dem te na ngeen wala ngeen politicien au nom de quoi ay nit taxaw tay may vous êtes majoritaire dans le pays mais si vous êtes majoritaire dans le pays mais cette provocation elle sert à quoi dama

di woté na euh, en fait di napp grand di bëgg a naan fitu grand ay waaw suñu génnee ci élection yi ay haute cour de justice da ngay nappaati rek di dama na ko du grand rek dama né wax ci mi ngi fi fii la wax ci nek c'est là le bloc générationnel gis ngeen démb c'était Abdou Diouf Ablaye wat ensuite Ablaye wat Macky ensuite Macky ak Mimi na mi mi bu baax mu ko euh, dans les grandes démocraties quand il y a des débats télévisés ce n'est pas au pouvoir sortant de choisir les invités mais je souhaiterais surtout que le débat soit en français d'abord parce que nag commence à problème avec l'ENA parce que si l'école nationale d'administration ne produit que des cancres de cette nature, il faut fermer cette école-là. Man, man Souma Pap, c'est un énarque, sorti major de sa promotion. Il y a un sérieux problème à l'ENA aujourd'hui. Parce que énarque, vous dégoulez tout bas, il y a un problème. C'est le moins de gris. Maintenant, il faut chercher, vaille que masquer son incompétence et ses, et ses, et ses, faiblesses. Ça ne passera pas. On l'invite à un débat. Et on l'invite surtout à un débat sur ces sept derniers mois. Comme il n'y a pas de scandale à la tête, il pas de scandale. Comme il n'y a pas de scandale on a, il n'y a pas de scandale. Parce que nous, nous, tu nous,

am ñeneen nag ñu ñëw nag pour ruubee ak cokkaas wante ñooñu moom gëm naa ni bagage suñu leen def démb moom bu ñu ko fàtte te eh, su leen tamit nañu waajal le trente noonu la mbir demee parce que ci dëkk day am démocratie ak am tamit loi que le gouverneur de Tambacounda prenne ses responsabilités que le préfet de Tambacounda prenne ses responsabilités et que le commissaire central de Tambacounda prenne ses responsabilités ñun xuloo yóbbuwuñu Tamba xeex yóbbuwuñu Tamba ruube lu yóbbuñu Tamba lu ñu yóbbu Tambacounda mooy dem taxaw suñu mbokk jàppale suñu mbokk te wan suñu mbokk que ñu ngi ci wetam te wan tamit suñu mbokk que injustice buñ ko teg ñoo ko bokk wante nag dinaa leen jox benn exemple bu daw caricaturé parce que comme fii dëkk bi maintenant malheureusement naa firki taxaw nañu nekk daal ci gàttal ñoom luñ ñu ko gisee ku ko gisee noonu ci gàttal daal yow bo yow da ngaa bon waaw ma laaj yéen catholique yi yenn musulman yi est-ce que yéen di ngeen nangu yéen àjjuma jullit yi noonu dem jullit yi catholique dimanche yi ñu doog dem ci messe yi est-ce que di ngeen nangu ay naafeq jóge feneen parce que dama ñu lu ngeen gëm ñu taxaw ne du ngeen fi julli loolu moo xew Tambacounda dem est-ce que am na benn jullit bu dëkk fii Sénégal est que am na benn catholique bu dëkk fii Sénégal di nangu àjjuma wala dimanche ay yéeféer jóge ci àll bi ñoo dugg sen juma wala dugg sen jàkk ngeen di julli ñu taxaw di leen di perturber ne du ngeen fi julli amul kenn ku ko fi nangu le 30 tout nous serons à Tambacounda inshallah vous allez nous respecter par force foofu la dëkk bi toll parce que nak yak mo gëna a yomb a defar te reewantul tubéy la parce que nak lu ëpp tuur dama manière, ceux qui ont peur et qui ont décidé de se taire ils n'ont qu'à assumer leur responsabilité parce que malgré de dëkk bi ñaari les gens ont peur de parler parler de quoi peur de quoi peur de qui nous savons que kilifa diine yi ngeen nous pat que c'est cette démocratie yi ngeen ne pat ñu leen di saaga ngeen ne pat dama ne ñun du nous nangu tey du ko nangu ëllëg te suñ ko naree faj dinañ ko de suñu bopp te xam ne nu koy mais à partir de ce moment que chacun assume ce qui va se passer

mais cette façon de faire pour qui la may voulais m'adresser à une la may vous prenez pour qui et je voulais m'adresser à une certaine presse internet. am na un site internet taxaw ne waaw suma un ay ndaw vous fa un di man un un parce que foofu kese laa xam askanu Baobab jox nañ ma lépp su ma biir dëkk du ñëpp ànd ak man te xam ngeen ci dal su ma koñ du ñëpp a ànd ak man biir Baobab du ñëpp a ànd ak man wante dama ne amul kenn kuy baaw Baobab amul kenn ku fa jiñ bés ba nga taxaw ne da ñëw su ma buntu kër di ma provoqué amul xel sax xalaatu ko

Tambacounda fu Danel, daaneel remercier Mamadou Kassé le président du conseil départemental de Tambacounda pour sa mobilisation des wante pour euh, Tahawai, bu mu am aux côtés du président Bougane Dani. Euh, la dictature rampante je n'en reviendrai pas Il y a une ñoom ba ñu toogee ba une ku fi autorisation de marche Le gantu la ku ku fi taxaw ah, joxe sa xalaat ñu Il y a une question nous ñu organiser des élections législatives aucune concertation balaa may ñu ne waaw le temps qui nous est imparti may ñuy def révision des listes électorales la révision des listes électorales je vais expliquer fan la bàyyee ko d'abord y a le code électoral la loi électorale nee entre chaque élection dañu la révision des listes électorales Si nous mun le protocole de la CDAO stipule qu'au moins six mois avec avant élection na d'accord. d'accord, accord une nous biir veut a élection une révision de listes nous am d'accord d'accord, nous que effectivement une élection ou révision des listes mais taxaw ci sama day gëm ak tamit ci ay sondage nous un sondage yooyu moom nous baax aussi nga taxaw ne organiser élection mais vous allez priver à 440 000 primes votants le droit de voter. La Constitution du Sénégal m'a consacré le droit de vote. vous, Ben juge du Sénégal, y compris des juges du Conseil euh, constitutionnel, à fait ben juge pour mën décision qui peut être au-dessus de la constitution du Sénégal constitution du Sénégal mon est am 18 ans il y a may de en 7 mois vous saviez très bien que nous de dissous l'Assemblée nationale Nous avons organisé une réunion la pour pouvoir donner au moins à ces jeunes la possibilité de pouvoir voter 440 000 Sénégalais en âge de voter sont exclus du vote le temps nous est le temps qui nous est imparti Mais nous avons organisé une révision des listes mais vous violez aussi la Constitution Sénégal, vous violez la loi et vous, violez, aussi le protocole de la CDR. moo tax ma ne fu ñu fu comme étant une dictature rampante c'est une dictature debout moo ñu ne tombez pas dans l'émotion ne tombez pas dans la dans la provocation wante élection yi ku mu neex ànd ak ku neex wante nañ def lépp yar ak parce que loolu moo gën ci ñun ñëpp te loolu moo Sénégal te j'espère que ça tombera pas dans le dans l'oreille d'un sourd parce qu'il faut pas que demain les gens disent qu'ils n'étaient pas avertis, qu'ils n'étaient pas au courant parce que il y a des choses que personne n'acceptera dans ce pays wax naa leen sànq ci sur le débat, je ne reviendrai pas. Le Téléthon, Téléthon Bobo, président lancé pour le compte et le nom de la coalition Sam Donc, moi, je porté la voix de la coalition. Kon nag téléthon Borou, wax dëgg yàlla ñu sénégalais Quand on nag lu ñu gën ñor ci sénégalais je contribué surtout contribuer surtout en nature cette euh, année-là, te wax dëgg yàlla bi lu ñu nekk di di récolter yenn somme yi di ko teg entre les mains de certaines autorités qui sont au qui sont aux ordres duñu ko def c'est pourquoi nous préférons que les gens contribuent en nature moo xam ceeb moo xam diwlin moo xam suukar moo xam ay matelas pour ñu mën a dem euh, jàppale suñu mbokk yi ngeen xam ne wax dëgg yàlla catastrophe bi dal na seen kaw euh, mbokk yi je crois que le tour a plus ou moins été été fait. Euh, au-delà de tout ce qui se fait actuellement pour déstabiliser la coalition Sama Nous, sommes Sénégalais nous sommes en ñu de nous L'élection di élection le 17 novembre 2024 Nous, sommes ci massivement pour la coalition Sama parce que nous ñu nous moi, assemblée nationale on doit y avoir un contre-pouvoir parce que nous, wane nañ une boîte ci juróom-ñaari je pense que am na ñu nous ñu àndoon ak nous en commencé Nous, am xel ñaar di nuyu tamit mbokk yi diaspora parce que nous nañ bu baax engagement euh, par rapport aux avancées démocratiques de ce pays surtout ça, Nous ci ñoom ñu gestuwaat de fi parce que la diaspora a grandement contribué à la dernière alternance. Cette diaspora-là, aujourd'hui, on souhaiterait leur dire que les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont ici au Sénégal, absolument rien